allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxazana ida chita sahla allahumma axrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna biruknika alladi la yuraam warhamna biqudratika calayna wala tuhlikna wa anta arraja a del siwaat nañ ci tafsir bi biidnillah xam ngeen ni ba tey ñoo ngi ci suuratu nahl war a tàmbalee tey boppu aaya cent trois baada audu billahi min alshaytani arrajim ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرى بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استهبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الحمد لله رب العالمين نونجي بايكوون في برم تعالى دينو خبارين القرآن مي ki ko wàcce ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ruuhul qudus ruuhul qudus nag mooy jibril alayhi salaam borom bi ne ko alquraan mi danu ko wàcce ngir mu saxal ñi gëm yàlla alquraan téere la boo xam ni day contribuer ci dundu doomu aadama di ko defar di def ci moom lu bare bare bari kon téere la boo xam ni jullit ñi waruñu ko sàgganee te am na luñ ci waxoon ci dars bi paase muy ni wéttal la xarit la wara doon waaye àndandoo la war a doon téere bii nag bi ko yonent bi jàng ci màkka arab yi ak li ñuy dégg-dégg arab dañoo wedem dañoo gëlëm xamuñu nan lañuy ñuy diire alquran ndax wax la joo xam ni dafa leer naññ ñu di ko déglu te mu nekk wax ju ràbbaloo nekk wax juy àgg ci xol nekk wax joo xam ni xel mënu koo critiquer ndax téere la boo xam ni day dund ba faw yéefar nag bi ñu contre contrecarré côté bu nekk ñu jëm fa ngir taqal téere bi ak it taqal yonent bi sallallahu alayhi wa te gisuñu yonent bi jàng kenn gisu ko mu jàng mu xëy bés ne yàlla ma yónni ñu ko defee am ñu ko gëm amit ñu weddi comme téere bi mooy référence ci lay wax bi mu ko defee ñu tàmbale nag ñoom yéefar yi naan Muhammad dey am na ku koy jàngal ndax lii mënta nekk mënta ñëw nii rek di wax te musul dugg fenn musul jàng jàngul bind kon su waxee lii am na ku koy jàngal problème bi nag ki koy jàngal kan la munuñ koo xam waaye daal li ñu mujj wax ñu ne innama yuallimuhu bashar lii moom du waxu yàlla bi muy wax waaye mbindeef moo koy jàngal mbindeef boobu mooy kan kooku sax ajami la nit la koo xam ne daal du arab du arab bu ko defee ñu ne ñaari xale dañoo nekkoon ci màkka kenn ki yasaar kenn ki jabr dañoo jàngoon tawraat mënoon ko comme nag ay ajami lañ ñu ne ci ñooñu la yonent bi doon làqatu di jël ay darsa xam nga loolu wax na joo xam ne du ju yàqu la loolu nag la boroom bi wax yonent bi ne ko wala qad ca dëgg-dëgg naalamu xam nan yàlla di tasli yonen yonent bi ne ko xam nanu ne annahum naka ñoom yéefar yi sos wu nekk ñu ngi la koy sosal wax ju nekk ñu ngi la koy waxal ngir bëgg a déstabiliser sa daawa ngir bëgg a yàqu xelu ñi gëm yàlla loolu nag fekk daawa mi ngi dund loolu day am fekk daawa mi ngi dox loolu day am saa bu demee ba noppee am rekk mooy nit ñi defatuñu seen rôle waaye fekk duaat yaa ngi wax alquran di wax sunna mu wér bis bu nekk laa wax ñu tuumaal leen sosal leen mën nañoo àgg sax ba ci seeni waajur ngir rek wax lu ñaaw ak nar dem safara borom bi ne ko xam nañ ni ñoom dañu naan yaquluuna ñu nga naan innama xam leen ni day yuallimuhu dana jàngal muhammad bashar ki koy jàngal daal nit la kon muhammad nit a koy jàngal yéefar yi ñoo ko wax léegi nag ñu ne baat yi muy wax lisaanu alladi yulxiduuna ilayhi baatub la nga xam ni danañu jéng-jéngal ak kooñooral ilayhi ca moom day ajamiyu baatu ajam la waaw ajam nan lay jàngalee ku namp arab te ki namp arab di wax wax joo xam ni ajam bi bu ko jàngut du ko xam xel nangu na kon alquran mii borom bi dafa bëgg wax ni wa lii muy téere bii làkk wa muy làkk nee na nun làmmiñ la boo xam ne arabiyun arab la kon nag bu fekkee li muhammad di wax arab la te ñi koy jàngal ajam lañ wax jooju am na contradiction dëgg-dëgg ndax ajam yi ngay wax dégguñu arab ba àgg xóot ci arab mën a wax lu mel ni lii kon ku amut looy wax loo jot rek wax kon borom bi ne wa lii nga yore yow muhammad di ko wax lisaanun làmmiñ la boo xam ne arabiyun arab la mubiinun bu bir téere bii arab yu bir lay wax moo tax pour nga mun koo faramfàcce il faut nga dégg làkk wi xam ca lu bare bare bari mën caa doog wax kon nag téere la boo xam ni duñu ñu rekk rek sànjaafu ko kon dangay jàng arab xam lan mooy arab doog a mën a am buntu ci téere bi kon yonent bi nee nañu ki koy jàngal ajam la yàlla ne leen déedéet téere bi arab yu biir la li nekk daal mooy ñoom daal li leen jàpp mooy bon agit wax-wax ju ñaaw ak sos sos nag ku koy def dootul am kersa borom bi nee na inna alladina naka gaañ a nga xam ni day laa yuminuuna du gëm bi aayatillaahi ci aaya yàlla bii yàlla nee na laa yahdihim du leen jubal yàlla nañu yàlla musal ci ñàkk a jubal yàlla nañu yàlla may njub njub ñi koy am mooy ñi ko bëgg kon soo bëggee mbaax àndal ak ñi baax soo bëggee safaanu baax it ànd ak ñi mel noona kon borom bi nee na ñi gëmul yàlla yàlla du leen jubal ñi gëmul yàlla <laughs> déedéet yàlla du leen jubal waaye nag ki gëm yàlla waxtu bu nekk mën naa am chance jub waxtu bu nekk mën na am chance dikkaat waxtu wu nekk bu ko xeeb ngir bàkkaaram ñaanal ko yàlla mën nga ko jàjj nag tatafu ko wax moom inzaar ko waaye bu ko xeeb mukk ndax bàkkaar bu muy def mën nga koo bañ nag ngir bàkkaar bi muy def waaye bañ bi na nekk bañu xol te bu mu nekk bañu jëf waaye loolu lépp boole ci di ko ñaanal ndax njub yàllaa koy maye ki ko yàlla may dey kooku na sant yàlla waaye bu mu garambaasu ki ko amut tey bu màndikat doon ñëw ci yow bis bu nekk nooy def ragal naa ni boo muytuwul léegi nga wax ko boppam xas ko mbaa nga toroxal ko lan moo tax màndikat la lan moo tax dafa bëgg sàngara te kii moom baaxut fekk déedéet ñaanal ko yàlla yàlla mën na koo jubal yonent bi sallallahu alayhi wa gis nga yàlla yónni na ko mu baax ci ñépp yemale ñépp dafa am benn waaye joo xam ni dafa bëgg yonent bi lool takk ko nag am na ñoo xam ni buñ la toppee ñooy ñàppantaan takk la waxtu wu nekk day ñëw di seet ci yonent bi yonent bi it du ko wan kanam gu ñaaw su ñëwee mu dalal ko mu toog te li gën a doy waar waa ji màndikat la moom day màndi moom ñëw ak mànditeem ñëw seet si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ndaw lu yéeme yonent bi daal yàlla ko yónni loolu moom ku yabu rek nangu ko waa ji gis nga ñépp xamee nañ ko muy ñëw ci yonent bi <laughs> waaye sàngara mooy na toom allahu akbar su demee màndi su màndee gaa yi gis ko yenn ko indi bu ñu ko indee dóor ko war nañ koo caw cawi mandite loola juróom ñett fukki yar ndax li muy def xoola buñ koy caw yonent bi xol bi du neex day toog nii ñu di ko dóor yonent bi day sëgg du ko bëgg xool ñu dóoree ba pare mu jóg dem yoonam subaa mu ñëwaat seet siwaat bi moom daal bëgg-bëggam ci yonente bi te xam nga ni yonente bi nee na laa yuhib laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa walidihi wannaasi ajmain kenn ci yéen du am ngëm lu dul maa koy gënal ñépp doomam baayam jabaram xaritam waa ji mandiwaat ñu indiwaat ko jagat-jagatee cawaat yonent bi toog yëngal bopp bi sëgg ñu def ko ko ay yoon lenn ci saxaaba yi di seetlu yonent bi ni ko affaire ni muy diise ci moom affaire bi day diis ci moom ndax kii dafa bëgg yonent bi te nattoom mooy lee ah kenn ci saxaaba yi seetlu ko benn bis ñu dóor ko ba pare waa ju tëb ne ko laanatullahi aleyk yow yal na la yàlla rëbb waay yow chaque jour nga def lii ñu dóor la yow doo am jommuk noonu la koy wax bi mu ko nee yal na la yàlla rëbb baat la boo xam ne kenn waru koo wax nit yal na la yàlla rëbb mooy yal na la yàlla yóbbu safara rek yonent bi jóg taxaw jàkkaarloo ak moom ne ko subhanallah yow xam nga li nga wax mu ne ah mu ne ko kii yonent bi du bàyyi mandi chaque jour bu ñëwee ñu koy dóor fii ah lii mënu ko bàyyi yonent bi ne ko wallahi xaw ma ci kii lu dul ni daa bëgg yàlla bëgg yonentam xool li ko yonent bi seedeel maa alimtu minhu illa annahu yuhibbu allaha wa rasulahu gis nga di ñu dooree waa ji mu ñibbi këram ba ba xiqi ñu wax ko li yonent bi wax rek waa ji daw jooy ñëw ci yonent bi ne ko kon yonent bi man bëgg naa la xoolal muy laaj man bëgg naa la yonent bi ne ko bëgg nga yàlla bëgg nga ma mu ne ko dinaa la bëgg trente fois dinaa la gën a bëgg vingt fois xoolal loolu mujj gi lu mu doon ñëw kër yonent bi da ko multiplier kon bàkkaar nit dina nekk nattu ci nit dina nekk nattu ci nit nattu la nag boo xam ni bakkan bakkan moo koy def moo tax nit ki war di xeex ak bakkanam fu mu toll inna nafsa la ammaaratun bissuu illa ma rahima bi mbokk boo dul xeex ak sa bakkan doo bàyyi tux boo xeexul ak sa bakkan doo bàyyi fen ndax gis nga tàmm fen mook naan boisson ñoo bis boo ko tàmmee bu jotee boo ko deful sa siddit day taxaw fenkat bi xam na li may wax yàlla nañ ci yàlla musal gis nga dina toog bëgg a xelam yedd ko mu xaw a arrière puusaat xëccoog boppam ba fen yàlla nañ ci yàlla musal kadalika bàkkaar yu bëri noonu la mel nit dina dem ba nekk asiru nafsi nga xamante ni day nekk ku ñu yeew bakkanam di ko diri kon loolu nit ki da ciy xeex waaye lépp bu ngëm yàlla amee dara diisatul nit ki bu xësee ba nekk jullit dara diisatul xam nga luy diisatul mooy feeg mi ngi ci daairatul islam tuub du ko wees feeg nekkul ci sukkuraan ba dee tuub du ko wees moo tax borom bi nee na inna alladina laa yuminuuna billah wala bi ayatillah nee na ñi gëmul aaya yàlla yi ñoom de laa yahdihimullah yàlla du leen jubale lu tax walahum azabun alim mbugal mu metti ñeel na leen mu ñëw nag ci sos sos mooy wax lu dul dëgg te jublu ba mooy yàq deru nit ak waxal ko wax ju bon waxal ko wax ju ñaaw jamono ba nga sosalee nit yëgal ni loola nga sos mu nekk ay fenn jàppal ni bàkkaar bu lay xaar la sa digganteek borom bi borom bi nee na innama xam leen ni yaftaril kadiba dana sos aw fen sos aw fen mu ne kan moo koy def na ñi nga xam ni laa yuminuuna duñu gëm bi aayatillahi ci aaya yàlla yi ñi gëmul aaya yàlla yi ñooy sos ay fen ñoom ñooy sos lu dul dëgg borom bi ne wa ulaayika alkaadibuun ñoom ñooy fenkat yi nekk weddikat yi sos nag sos ci diine gën a grave wax ci diine lu amul waxal diine lu amul waxal nit lu amul li ci gën a grave mooy ku ànd ak diw dem ajjana fan la ko yàlla wax kañ la ko yàlla wax nan la ko yàlla waxee ban heure la ko wax jullit war na lu muy wax mu ragal ci yàlla waaye diw dama neex rek ku ànd ak moom dem àjjana ñii àgg nañ ci ku sopp diw dem àjjana ñii àgg nañ ci ku xool diw dem àjjana yooyu borom bi nee na ñi koy def mooy ñi gëmul alquran mooy ñi gëmul aaya yàlla yi te tey malheureusement ñi koy def ñu ci ëpp nee nañu dañuy jàng diine mbaa ay julit la ñuy doon te loolu dañ ko oyofal ndax baat boobu boo ko waxee ne ku ànd ak diw dem àjjana ku ko bëgg dem àjjana ku fotos dem àjjana ba am ku ñàkk xalaat ku la topp ci loole bu ñëw ca mooy danga nga koo woo ci caaxaan te képp nag ku woote ci caaxaan yàlla subhanahu wa taala ma nga lay xaar moo tax ne ma xamal ni yaftari dana sos alkadiba ay nar ay fen kan moo koy sos mu ne alladina laa yuminuun gaañ nga xam ne duñu gëm bi ayatillaahi aaya yàlla yi yàlla nee na wa ulaayika ñooñee kat hum ñoom alkaadibuun ñoom ñooy fenkat yi mu ñëw nag ci ki nga xam ni weddi na te la ko tax weddi contrainte la weddiwul ci coobare boppam danu ko weddiloo imma ci ragalam walla ñàkk àttan li ñu koy teg te nit ñi noon lañu mel nit ñi ni ñu mel di nga ci gis koo xam ni dana dëgër lool waaye fitna ñëw tax mu bàyyi diine te fitna yooyu mbokk yi mu ngi ci kanam amaan na danaa ci indi lenn nit day conserver ngëmam su fekkee ni nag ngëm gi nga gëm teg nañ la loo mënul te li nga mënul yàlla la ko gën a xam su sababee sag weddi doo ca nekkee yéefar doo ca pertee islaam borom bi nee na man kafara képp koo xam ni weddi na billaay ci yàlla min baadi imaanihi ginnaaw ak ngëmam ah kooku day def na musiba ñu ne ko déet waay yow yàlla ma ne illa man ukriha ndare ku nu forcé ci mu weddi te bañu koy forcé wa qalbuhu xolam mutma'innun aji dal la aji tooy la fees la bil imaani ci ngëm misaal bi ñëw ci Ammar ibn Yaasir nga xam ni rey nañu papaam rey yaayam rey fameem ngir lan ngir rek weddi Muhammad yaayam bañ ñu rey ko ci kanamam papaam ñu rey ko ci kanamam Ammar xale la amagul douze ñu yeew ko di ko dóor di ko lakk ba ne ko saagaal Muhammad mu saaga ñu bàyyi ko bi ñu ko bàyyee mu daw ñëw ci yonent bi ne ko alkunaa yonent bi ne ko lan la mu ne dañ ma topp di ma mbugal di ma mbugal ba waxloo ma ci yow lu bon ma wax ko yonent bi nan laay def yonent bi xool koo ki xam ni xolam fees na del mu ne ko ba ngay wax la ñu la waxloo nu sa xel meloon mu ne ko sama xol a ngi fees del bëgg la bëgg yàlla yonent bi ne ko fa in aadu fa ud bu ñu la jàppaatee di la dóoraat te mënu buñ la nee weddil weddil loolu moom la borom bi naan man kafara billahi min baadi imaanihi ginnaaw ngëmam illa man ukriha ndare ku ñu forcé te wa qalbuhu xolam mutma'innun aji fees la aji dalla bil imaani ci ngëm walakin waaye ka nga xam ni moo weddi moom mu ne man mooy waaja nga xam ni sharaha biral na bil kufri kéefër sadra nag dënn mooy koo xam ni moom dara taxu ko doon yéefar lu dul intérêt liggéey a tax wala bëgg alal walla moodu moodu ji wala am teraanga tax mu jaay diineem te fitna yooyu ci la bokk ñu ngi koy dund léegi ñaata ci ndaw ngay gis ñu jaay seen diine ci sababu xaalis te mbokk yi alal fitna innama amwalukum wa awlaadukum fitna borom bi nee na seen alal yii fitna la seeni doom fitna la loolu nag borom bi nee na ki weddi mooy ki nga xam ni biral na ak kéefër ci dënnam ñooñee weddi ba bàyyi islaam ñooñee weddi ba caay-caay jàpp leen borom bi nee na fa alayhim war na seen kaw xadabun sànj minallaahi ci yàlla am sànj mu bàyyeekoo ci yàlla te ku yàlla sànj safara mooy doon sa kër safara mooy doon sa fay ndax kat yàlla ku mu mere mooy alku nga yàqule nga léegi nag ñooñu fa alayhim war na ci ñoom xadabun am sànj min allaahi bu bàyyikoo ci yàlla walahum ñeen na leen azabun mbugal azimun bu mag a mag fii nag nu mu ko neexee ba tax nga weddi bis dana ñëw nga perte lépp bu la ay milliards taxee doon yéefar wala bokk équipe nationale France tax laa jaay sa diine wala équipe nationale Espagne tax nga jaay sa diine parce que ñoom xam nañ ñi alal nga bëgg ñu lay foye loolu boo ko defee ah àddunaa ngi sa kanam àdduna day yàggul loo fi am amit la amoo fi ba ëpple nit ñi kon loo fi am amit la te li nga am munoo cee def li ëpp li ñuy amul di def baat boobu xaw ma dégg nañ ko déet gis nga milliardaire bi munta def lu ëpp li ki néew doole di def mooy lawaasimul xayaat yee nag nga xamante ni lekk naan lekk naan sëy tëdd nelaw loolu ñëpp a ci yem milliardaire beeg multimilliardaire bi millionnaire beeg ak ki nga xam ni amul dara gis nga lekk ak naan ñëpp koy def moom kay kër ñépp ciy dëkk jaan sax am na kër kon kër ñépp koy am ku nekk da nga am foo tëdd ku nekk da nga lekk lekk yi mën naa wuute waaye objectif lekk moom mooy lekk pour suur rek kon nag dëkkuwaay ku ne am na foo tëdd xanaa kay rafet naag rafetul la ñuy wax waaye tëdd moom ñépp a koy def kon nag bu la ay milliards taxee jaay sa diine mbokk yaa ngi def musiba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gis nga keemaan gu nekk def na ko sahabatul kiram ridwanullahi alayhim jékki gis te ku jaay diineem yombul yéefar yi dañu daan yéemu waxtu bu nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wahb kenn la ci sahaaba muy umayr ibnu wahab bi ñu xaree badr ba pare nga xam ni jullit ñi duma nañu yéefar yi dàq leen jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukk xeex boobu nekk lu metti yéefar yi ndax ñi ëpp ci kéefari yu mag yi ci lañ leen rey notable Quraysi yi jeexal nañ leen ci xare boobu waa Makka nag léegi ku fa des Abu Sufyaan ak ñeen nag ñi ñuy dëj ña deewoon asxaabul qalib nga xam ni bis lañu jël aw xur dajale kibaaru Quraysi yépp dajale leen foofu suul leen bi ñu ñibbisee Umayr ibn Wahb benn bis mi ngi toog ak Safwaan ibnu Umayya Safwaan ibnu Umayya borom alal la waaye am na ñu mu deele ñoom Hind noonu Umayr ibn Wahb ku sonaloon yonent bi la da daan lor yonent bi waxtu wu nekk nekkoon jàmbaar soxor bon xare bi nag jàpp nañ ci doomam mu bokk ci prisonnier de guerre yi bi gaa yi ñibbisee Màkka ay fan Safwaan toog ci xijru mooy ci wetu Kaaba gi bi mu fa toogee Umayr ñëw seetsi ko ñu toog di waxtaan ba ci yàgg safwaan ne inna fil ayshi baadahum xayr ne ko ah, cam dundati ginnaaw ñee yiw de loolu li muy tekki mooy waratuñu dund ndax suñu kilifa yi rey na leen kon ñun dañoo war a dee bi mu waxee loolu Umayr ne ko ah ay budul woon ak bor bi ma amee te mu nekk sama kaw ma war ko fay te am njaboot gu ndaw kon danaa jël sama jaasi ji ràngoo ko dem Madina rey Muhammad bi mu waxee loolu Safwaan ne ko ah, bu dee loolu kay du problème say bor mën naa koo fay maa ko garanti say doom danañu nekk samay doom fekk ñu ngi dund fekk maa ngi dund mais loolu bu amee mu ne ko man maa garanti loolu Umayr ne ko amul problème su fekkee yaa ko garanti danaa jóg dem rey Muhammad bi mu ko defee ne ko nag loolu sama digganteeg yow la yem nëbbu ko ma nëbbu ko su ma demee dinaa rey Muhammad dem jël jaaseem daas ba mu ñëw nàmm ko nandal ko xam ngeen nàndal mooy jël tooke def ko ci jaasi ji nga xam ni ku mu cor rek dootul wér nandal ñu ngi koy defee dangaru jaan dangaru jaan la ñuy jël sotti ko ci jaasi ji daas koog moom bu ñu la ko cawee rek dangar bi da lay dugg bi mu ko defee Umayr dugg biir këram war fasam laxasoo jaaseem ne Madina màngu bi mu ñëwee Madina agsi digg bëccëg ñëw ba ci wetu jàkka ji takk fasam Umar ibnul Xattaab ba nga toog ak lenn ci soxaaba yi Omar ne bandi bee may gis narut yiw jóg bi mu jógee ndaw ñi topp ko Omar ñëw fekk ko mu taxaw mu ne ko looy wut mu ne ko Muhammad laay seet Omar ne ko tareet poñe ci digg ginnaaw gi tee ko ba mu dëgër ne gaa yi topp leen ma comme yonent bi soxla ñu ànd mu diri ko ba ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi gis ko bi mu ko gisee ne ko Umar mu ne naam mu ne ko bàyyi ko Umar bàyyi ko ne ko waaye duñu dem taxaw mu ne yonent bi an'imu sabahan nuyoo jaahiliya la mooy xëy leen ndékki arab dañu koy faral di nuyoo bi mu ko defee yonent bi ne ko qad abdanana allahu bi tahiyatin xayrin min tahiyatik tahiyatu ahlil janna assalaamu aleykum wa rahmatullah ne ko yàlla wuutal nañu nuyoo bi gën sa nuyoo muy nuyoog waa ajjana mu ko defee yonent bi ne ko luy say tànk umayra fen ne ko sama tànk de mooy sama doom dañu ko jàpp jar-jar fii moo tax ma ñëw di tinu pour ngeen bàyyi ko yonent bi ne ko ah lu tax kon nga làmbaayoo sa jaasi am na jaasi arab nu ñu koy làmbaayoo dañuy xam ni xeex nga bëgg waa ji ne ko cam haada sayf la barakallahu fii ne ko moo cam jaasi ji bu amoon njëriñ du ma toog fii di ñëw di kii sama doom konoon jeexal naa leen waaye jaasi ji cim jaasi ju bon ji mu waxee loolu yonent bi ne ko wax ma dëgg Umayr luy say tànk mu ne ko may indi dara nekkul samay tànk dul loolu ko wax ma dëgg mu ne ko dara indiwu ma yonent bi ne ko waxoo dëgg ne ko da ngaa toog ca hijra yow ak safwaan ngeen toog fa yoor yoor allahu akbar allahu akbar fekkewul makka ak madina ni mu sore haza rasulullah ne ko dangaa toog foofu yow ak safwaan ibnu umayya safwaan ibnu umayya mu ne inna fil xayri baadahum inna fil aysi baadahum la xayr ne dund ginnaaw asxaabu qalib yi ngeen doon waxtaanee te mer mu ne dund ginnaaw ñooñu dee ci topp ne ko yow mii nga ne ca tonet ne ko man de leen na ma jaaxal dama ame bor te awma lu ma ko fayee ak samay doom yu ndaw waaye su ma ko amoon danaa dem rey muhammad sallallahu alayhi wa sallam safwaan ne la maa ko garanti nga jóg ne ko safwaan man yow yàlla bu kenn yëg ma dem rey muhammad waa ji ne laa ilaha illa allah ashhadu wallaay maa ngi seede ne yàlla la yónni ñun da ñu doon wax xabaru asamaan ñuy weddi tey man maa gis man ak safwaan dong ñoo toogoon wax li ñuy wax picc déggut ñu kon ki la wax lii yàlla la mën a nekk te moo la yónni ashhadu an laa ilaha illa wa annaka rasulullah yonent bi ne umar mu ne am mu ne kii seen mbokk la jàngal leen ko diineem ngeen jàngal ko alquran bàyyil ko prisonnier de guerre gis nga umayr jàng ci diire bu gàtt jàng na fi alquran commencé fay jàng diine safuwaan moom ma nga màkka bu gaa yi waxee ba mer mu ne noppi leen léegi xabaar ñëw ngeen bég muhammad léegi mu dee <laughs> moom ndeysaan ma nga yëgle moom ah ngeen bég muhammad léegi mu dee loolu lay wax jékki ba ci yàgg Umayr wax Wahb ne tëll màkka aksi lu la indi mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa annahu rasulullah nekk daayi bi gën a mag ci màkk wallahi day dugg kër ak kër porte à porte tête bu dee caay-caay kenn ëppalewu ko ko waaye léegi day dugg ci kër yi di daawa avant fatxe màkk di jot li mu dugal ci islaam mbaa yéen a ngi koy def mbaa ñoo ngi daawa mbaa ñoo ngi dugg ci kër yi mbaa ñoo ngi li ay ndaw a ko doon def de ay ndaw ay ndaw ñoo doon daawa billahi ladi la ilaha gayru liggéey gënul daawa ci kaw islam xawma liggéey bu ko gën moo tax gis nga ndaw li semaine bu nekk boo ci amee benn waxtu waaye demal nga jaay ko borom bi bul iñaanee yàlla benn kàddu bu ko ko iñaanee bul iñaanee yonent bi valeur yi mu am benn kàddu daawal wooteel seytaane yi lu ñuy bëri bëri bëri bëri ñeme ñeme ñeme am am am fit waxal incha allah kii jub xamoo ko yàlla muy jubal yàlla mooy jubal waaye boo toogee iblis da lay mën noo boo waxee mbaa gars yi duñu mer est-ce que duñu la xeeb est-ce que nangam nga ni booy est-ce que bu ma waxee fii du ma am problème doo nekk daa yi na mbir mi nekk lu la ñor nga fexe xam sa société ay band yu dul jeex jóg nañ pour yàq su ngeen doonee ñetti jóg leen pour defar wallahi na junni yàq na ñetti defar barke bi mi ngi ci ñett ñiy defar bu ko xeeb bul ragal caaxaankat yi ñooy caaxaan te bari na lool gis nga fitna yii kanam la jëm bis bu ñu takkul suñu bopp pour daawa mooy ñu ngi seetaan waxoon naa la dinaa ci ñëw gis nga fitna yi mujjug jamono Umar bin Xattaab radiyallahu anhu wa arda yal na yàlla gërëm ko mbokk yi Umar keemaan la ci keemaanu islaam yi yàlla na nu ko yàlla fayal Umar li mu liggéey bari na boo ko doon xool munoo koo jeexal Umar li mu defal islaam ndax islaam mën na ko koo fay ah allahu akbar mbokk yi yonent bi gaañu na Huzayfatu bnul Yamaan moom la yonent bi dénkoon secret yi fitna yi am yépp yonent bi waxoon na ko Huzayfa yi am mujjug jamono yonent bi waxoon na ko Huzayfa benn bis xilaafa Umar bnul Xattaab Umar dafa dajale jullit ñi bi mu leen dajalee ñépp toog mu woolu xudayfa bi mu wooloo xudayfa xudayfa ñëw ma ne ko haddis bi ma kaana yastaminuka rasulullah ne ko xudayfa mu ne naam mu ne ko li la bi waxoon wax ñu ci dara bokk ci secret yooyu xudayfatu bnul yaman mooy saahibu sirri rasulullah xudayfa ne ma ni fitnatu rajul fii bayti fitnatu rajul fii ahli mooy nit dina am fitna ci këram nga joxe kàddu sa jabar du la faale nga wax mu def ne la ma tay nga bëgg a dal ci kawam ku nekk jóg fitna yooyu moo tax ñi warul bejjaaw bejjaaw waaw fitna yooyu Umar ne ko maa aqsidu haada ne ko Hudayfa jubluwuma ci ngay wax fitna bi ñëw tamuuj ka mawjil bahr laa lay laaj yow Huzayfa bëgg nga wax ñu ci dara Huzayfa nee na ma bañ wax lu naqari Umar ibn Khattab ndax kilifa la bëgguma wax lu ko choqué Umar ne ko loolu laa bëgg nga leeral ñu fitna yooyu di ñëw mel ni ay duusu géej Huzayfa ni Umar fa maa baaluka wal fitna Umar luy sa yoon ci fitna fitna yooyu yow doo ci bokk yow Umar ibnul Xattaab doo ci bokk doo ko fekke ndax fitna la yoo xam ni ku amoon xel dana gëlëm ku baaxoon dana tiit ku ragaloon yàlla dana jommi Umar ibnul Xattaab ne ko waaye laa ilaha illa allah Hudayfa lu nga wax loolu mu ne ko sa diggante ak fitna yooyu am na buntu baynaka wa baynal fitna baab am na bunt bu ci dox Umar ne ko buntu boobu buntu lan la a yuftaxil baab am yuksar xam ngeen ni Umar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su amoon ku yàlla yónniwaat ci xeetam Umar lay doon Umar ne ko bunt boobu dañu koy toj wala day ubbeeku Uzayfa ne ko laa bal yuksar Umar jóg rek ne subhaanallah laa ilaha illa allah di jooy di jooy ba jullit ñiy jooyoo Umar génn rek dem gaa yi ne la lan lay def nii lan lay wax ni ba wax lu choqué amirul muminin Uzayfa buntu bi ngay wax buntu lan la Umar ibnul Xattaab ñëwaat ne ko Uzayfa nga ni mu ne ko antal baab buntu boobu yow la buntu boobu Umar doon laaj bi ma leen doon wax Umar la mooy buntu bi toj bi mooy dañu koy rey Umar xamoon na ni dañu koy rey Umar jóg mbokk yi danoo rey Umar ibnul Xattaab fitna tàmbale ba léegi fitna tàmbale fitnay pas-pas fitnay xawaarij fitnay siica fitnay raafida fitnay dugal lu bon fitnay woote woo mahdi fitnay yàllaa ma yónni yi man wàllu yàlla la fitnay di nga dem ajjana fitnay ku ma topp yàlla ngay doon fitnay diw yonant la fitnay nangam fitnaal nit ñi ci seen diina ba kenn dootul dégg yonant bi sallallahu alayhi wa alihi wa fitna mooy am nit day ñemee taxaw ne la man sama yoon ci yàlla nit day ñemee taxaw ne diw yàllaa ko yónni diw rasulullah la nit day ñemee taxaw ne ku ànd ak man dangay ngay dem ajjana nit day ñemee taxaw ne ku ma nangam ku ma nangam fitna yooyu rëy na waaye am na yeneen fitna yu ñëw mbokk yi fitna yi àdduna bu yàqu alal rek la nit ñi di gëm daray diine dootu leen saf mag ñi dañuy gorgur dem ndaw ñi gurgur dem alal rekk xool leen tey suñu ndaw ñi lan la lan boo booy déglu information da ngay jooy dangay ngay tiit uti alal di leen jaral ñuy dee ci ay géej uti alal di leen jaral ñuy jéggi saxaraay ay xaj di leen lekk xool leen diggante Maroc bi ak Espagne li fay dee ci ay ndaw ndaw ñooñu lan moo leen tax a dem uti alal yaa axi lan mooy alal lan mooy alal ba ngay sàgganee sa ngëm yàlla di rey sa bopp ci lu jarul dara dara dara te mënoon a toog gëm yàlla jaamu yàlla lekk fi lu néew doo dem dee dem àjjana waaye nit ñi lan lañuy gis alal mbaa dee barsa wala barsaq alal wala bàmmeel bu sori fitnay jigéen jigéen nga xam ni fitna yooyu day yaatoo yaatoo yaatoo yaatu ba njaaloo kenn dootu ko rus dañu koy ñeme jigéen day dem ba day harcelé góor léegi góor ñi ñooy commencé dem ba dañuy am kersa fitna yooyu day yaatu ba tëgg ak fecc rek la ñuy gëm tëgg fecc guddi bëccëg nit ñi nekk ci nawaadi yi nekk ci dansin yi nekk ci bërëb yi fitna yooyu yëpp mbokk yi ubbeeku na kon yow mi nekk ndaw am nga ngan di liggéey pour taxaw jéem koo contrecarrer bul ni wéet naa de déedéet wéetuloo wéetuloo ku ànd ak yàlla doo wéet waxal bul tiit bul rus bul ragal waxal yàlla ne yonent bi ne loolu kenn moomu ko kenn moomu ko fitna yi bokk na ci danañu dem ba ku ne yàlla nee na ñu ne la terroriste nga danan dem ba ku ne yàlla nee na da ngaa mag ñi danan dem ba yàlla nee na diina ju bees ji danan dem ba ku ne yonent bi nee na kañ ngeen fi juddu danan dem danan dem danan dem ba léegi yooyu dalay topp yow ndaw li ba dootoo ñemee wax ñaata duaat ñooy jóg bëgg wax duñu xam fu ñuy déparé léegi loo bëgg wax muy fitna léegi danga mujj dem léegi di jël ay su yonent bi di ko ràbbalanteeg xew-xewu jamono di jàdd di mbas mel ni footballeur mel ni footballeur xadiis bi léegi dootoo ko wax na mu nekkee mais da ngay ragal leeral xadiis bi waa diwuñu ne man lay wax de da ngay ragal leeral alquran waa diw ne man lay wax nga ragal leeral sunna waa diw ne man nga su boobaa da ngay nekk mutaxayir da ngay gëlëm wallahi li ma lay wax nii boroom xam-xam yi xam nañ li ma lay wax nit dina tiim temam war a waxtaan ci rajo day gëlëm du xam lu muy wax lan ngay wax yow li nga war a wax fi nga nekk fa la déparé yow yow da nga war a ñëw ni ragal leen yàlla ci rajo bi la déparé directeuru rajo ba ak télé ba da leen a war a wax nañu ragal yàlla noo koy defee noo koy defee noo koy defe soo ko defee génn ah, boo ko defee génn boo ko defee sama wër ma man ak sama ndaw sax ba ma xoolee ma ne ko yow laay déparé ah loolu ma fi indi waxtaane jigéen a ma fi indi nga wattu nel mel ni góor te man dama wax nu jigéen ma la mel yow laay déparé loolu mbokk yi gis nga gis nga daawa bi yàlla nañu yàlla barkeelal waaye wallaahi damay toog damay tiit foo yaakaar fitna nag am na bu foog ni kenn am na jàmm néew na ma pare dars fii kaftool lu dul dana recevoir ay saaga ndey ba doy billahi ladi la ilaha gayru dars bii passé semaine bi benn waay daf may woo ba muy lu mu xam ci lu bon mi ngi koy wax sama yaay ak sama baay billahi ladi la ilaha gayru naan ma Pape Diouf ngay wax ak nanga mel ni mel ni de dama ree day wax ba sonn ma reetaan ko ne ko yow moom jaraloo ma wax day saaga saaga saaga saaga saaga saaga saaga dama toog ba caag ma yëgal sama bopp ne mi ngi nii de ku ragal lii doo wax ku ragal lii doo wax waaw wallahi ku ragal doo dem mbokk yi li jaral saay-saay si ba ñuy yàq na jaral jeunesse bi ba ñu jóg daawa nañu jóg wax yàlla nee na yonent bi nee na yéen la sunna yaakaar de bis bu ngeen taxawee musiba dana am kon nag nañ leen góor góorgóorlu bu baax a baax ci loolu kenn ku ci nekk na yëg ni yow yaa war a taxaw taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow yaa war a fexe nit ñi baax yow yaa fexe ndaw ñi baax góor ñi baax jigéen ñi baax bari na ñuy dox ci dëkk bi xamuñu wallahi xamuñu bis boo leen leeralee da nga xam ni xamuñu te ñoom danañu xam ni xamuñu bis dana jot nit dana taxaw ak xamal la ni carrément li ma doon def nangama nangam mais xaw ma woon dëgg la lan moo tax walakin akthara annaasi la yaalamuun ay saaga dara ay xas du dara ay dóor du dara xool leen ki ma fi njëkk a waxtaan nga xam ne luñ ko def ah Ammar luñ ko def dañ ko dóor man dañu ma sa saaga lu ne ci saaga dafa may tax déedéet mais kon jarul taxaw continuer jarul taxaw continuer benn dëkk dañ ma soxla ñu ne dañoo bëgg ma defal leen benn waxtaan ci wàllu tawhid waaye nag oustaz dañoo ragal ndax paa yi dañoo am problème man bu ngeen ragalee ngeen toog man de bu mooy mooyee ñëw danaa wax liñ ma loo moom tawhid ngeen ma soxlaal yéenay xool lu ngeen bëgg ñu wax xoolal même léegi ñi bëgg woote sax waxtaan ci diine dañoo commencé am problème parce que ragal nga ni boo fa nee tawhid laal ñenn kon nañ ko bàyyi waaye insha allah gis nga diine ji ca kanam la jot kenn mënu ci dara fitna yi dana bëri yàqu dana bëri waaye sunna rek rek rek ca kanam yàlla nañu yàlla may jàmm may ko mboolem juri incha allah rabbi xam naa damay tënk fii rek ba ba ba ba darsi bi di balaa maa déborder incha allah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain